waaye kii di Coen si ci ay série de victoire yu bëri la toog du may dara day andi mbooloo mu bëri daan la jël bu day ànd ak ay mbokkam ñibbi baax bi ndeysaan dëbb gis ngeen Wally Balago xale bi xew ci jamono loolu ak télé bi xew ci jamono feesal grand théâtre def fan si bëri ñi uhuh. bindu bëri mu def ko ñaari bés démb nag uhuh. les techniciens du grand théâtre

Gomes mi ngi teg pied droit. nit ki naan ko mépp waaye demul waaw gëdd na ko gëdd na ko waaye demul ña ngay demee wet. Gomes léegi-léegi mu déplacé wu. seewaat boppam xoolal Eumeu Sène mënatul a taxaw. mënatul a toog mënatul a jonkañ. ma ngay màttu di melestiku. xoolal ma Eumeu Sène ca suuf. dereta fort ngi xool xaadim. nam ko war a wax wax na ko ko. nam ko war a yabe yabe ko na ko. moom ci entraînement def na ko la war a def ci moom alal def na ko ci moom li ci des moom la waaye bi muy dajeel ko dëgg tëggeej ba bar ñi jaar fi ko kuubu dal daw nañu daje daw nañu daje daw a daje daw nañu daje daw nañu daje Quench Quench ak Khadim door la indi waaw waaw ma ngay xeex xoolal ama mi ngi mel ni mooy bëre. ndeysaan. Quench fayu na. daw na jël ko mu rasu rek daw na ñu jàppante mu rasu. tente nañu ñoom ñaar a uppercut. xale baa ngi door xaadima ngi door. mi ngi la gàcce ba bi métti na. xaadim combattant la xeexkat la. mi ngi nànk. ndeysaan xaadim daw na jël daw na ñu doorante. mi ngi nànk Quench. ñu ngi takk na ko takk na ko bu ko delloo si takk na ko mu bañ wel si bañ na daf na ko pour si daf na ko kontaan na ko wel si daan na ko jëli bu rëy na ko jëli bu rëy mot mu rëy da ko taf mot ko première défaite de quoi de de Sri Lanka da ko taf mot ko da ko taf mot ko daan ko jëli bu rëy alors ma bëre bi rëy na xeex nañ xeex bu méttee métti kenn bàyyiwuñ Magandang araw!